seef seef xam nga moo sama yaay. dama ne la waay. waaw tis kaay toog waay waay sama xarit waay. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Baba, le directeur de la SOGID, s'il vous plaît. Il est en garde à vue. Je ne peux même pas le voir pour cinq minutes. Madame, il est en garde à vue. Personne ne peut le voir, il ne peut voir personne. Oui, Monsieur Sow, c'est Mounas. Ça va, vous allez bien Ça va, bien merci, oui. Dérangez-vous là-bas euh, dama jaaroon léegi ci monsieur Baba Ndari donc euh, ma bëggoon ko gis mais euh, donc dañu refuser tout visite actuellement dañu bañ carrément est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'accord merci beaucoup

damaa toog ci rajo bi rek dégg ñu koy wax ñaareel ba benn xaritam moo ma woo li ma ci xam sax moo ma ko wax waaye metti nga trop massa jaboot lu ko dal day metti waaw xanaa bi muy dem defaloo ko ñaan sama kañ defal naa ko ñaan sax waaye xam nga ndëri dafa yor jikkoy tubaab Ndeye de kon moo tooñ boppam da politique boo ci nekkee dangaa war a takku sangu naan ndax dangaa am ay soppi ami noonu deme na ni muña mu soobee yàlla lu ci war nañ ko def ndax dégg naa benn sëriñu pël fii ci kër seega picc sa bu diiree du mooy kon maram toogaay amatu na muñ lekkal ba suuf naan ba màndi nelaw ba yàndoor te xam say doomi ndey ñoo ciy taxaw lu ci war dee ñu ko def ndey ñu dem te ñëw. ça va. Tu vas bien. yaa ngi ci jàmm. lekk nga.

office de la bonne gestion jaar nañ dem kër ga j'avais pas le choix j'étais obligée ànd ak ñoom bureau ils ont pris tous les documents d'ailleurs sax léegi Bokar moo assuré intérim Bokar. Bokar. grand. doo mhm. ma ñaanal foofu ndox ah. Bokar. grand. jàpp si waay dama dama màgg quoi. soo su yoroo fukki Sarr. waaw nijaay li ñuy def nag. li ñuy def ci lan ah. na ngeen bëri seytaane ba seen yëf yooyu bu ci kenn tudd da ngeen ni ma la ko waaw nijaay dafa li ma la doon ñaan rek soo ma ko mënee may nga bàyyi ma seeti sama doom nijaay watuma taal lekkatuma ba suur jamono yi sama xel mi nekkul si fenn dul sama doom ma xam nu mu toogi ak naka la sa doom de mënuma la kaa yoonu Dakar na mi ngi noonu bu la neexee nga dem. d'ailleurs même woykat bi wax na ko yàlla lu mu def noonu soo ko gëmee rek noppi ça c'est mon destin je sais pas je sais pas ils m'ont interrogé ce probablement dina gisee ak le juge d'instruction je pense qu'ils vont me déférer. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais que tu sois forte. <laughs> Qu'est-ce que je vais devenir, toi dinaa la rappeler dara avant nga may yàlla moo fi bi ñu xamante ni yàlla moo fi te budul man yàlla rek moo fi des ki la doon sàmm ba nga gis la ba nga la même su ma fi wutee tu m'avais promis quelque chose tu m'avais dit depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés tu te souviens Sarr. naa la wéttali. Bah pourquoi pas toogal. merci. ça va bien. bien et vous. alhamdulilah. waaw dama la seen fële. Uh-huh. apparemment comme vous étiez seule ma ne xaaral s'il vous plaît mademoiselle voilà. Est-ce que vous pouvez lui me servir quoi champagne, s'il vous plaît. Champagne mm -hmm. bon Champagne Oui, champagne. Ok. Ça va Bien. Et vous, vous allez bien Je vais très bien. fii nga dëkk fii nga logé ci hôtel. waaw waaw waaw waaw dëkk quand même je suis je vis ici mais juste pour quelque temps quoi je partir. ok mm. mais coof bu mel ni yow nan lay nekkee moom kese soxla woo ku la toppatoo. comment. ku defar sa yaram ba mu baax. ah oui. Mm-hmm. ah enfin pourquoi pas bon euh, comment va se passer. ah. yow tamit. comment ça va se passer. boo amee xale bu mel nii sa disposition dañ ci def dara. yàlla moo xam boole nit mën na nekk au mauvais moment au mauvais endroit mais yàlla aussi mën na dogal le contraire je ne suis pas un messie mais xëy lii la yàlla naroon suma diggante ak yow neex nag. dama ñëw Dakar ak ay conviction yu leer nañ xam fi mu bëgg dem xam fi may jaar mais bu la neexee bis ñi ki tey sa vie ak suma vie dina am leen boole ci bu lay neex demee bu la neexee nga dugg Dakar wut appartement bu baax bu am ñaari chambre ak benn salon dinaa ko fay dëkk fa ak yow dinaa la mat baay dinaa la mat yaay dinaa la mat mag dinaa la mat rakk dinaa la mat doom lu ma am dinaa ko bokk ak yow te lu ma nekk suba ba ngoon di ci yëg ci fii nga nekk nii amul issue et je te tends mes deux mains s'il te plaît je sais que ça va être compliqué mais ku la xool sa xam ni bon loo accepte ça pour moi.